asalaamaaleykum mbokk yi ñëw rek wax toujours ci wàllu cadre choix candidature benn Bokk Yaakaar yéen ñëpp da ngeen toog grand ngeen tënku ngeen ne Macky Sall dénk nañ suñu kàddu am na nag ay ñaar ñett ñu ne ñoom candidat lañ ñoom au moins ils ont osé le dire devant président yéen ngeen toog yéen ay grand ngeen ne ay leader ngeen ngeen toog ngeen ne président dénk nañ ko tey ñi xëy gis leen yow surtout Boun Abdallah Dionne nga ne yow yaa bëgg nekk ñu capitaine grand capitaine du demee noonu de capitaine day am fit. capitaine capitaine day day day dëgër capitaine day nekk nit koo xamante ne day wane ne capitaine la gars yi bu ñu joueur bu ñu gëstoo jaaxle dañ la war a gis mais grand ñaari at ba lay gisuñu la dégguñu la xamul ci loo nekk ñu ngi ñuy wax da nga feebar ñu ngi lay ñaanal yàlla nga wër mais man li ma jàpp ba jàpp mooy li 2008 nga abandonné ñu nga ñëw 2012 2013. bokkoo ci suñu benn combat ñu jox la euh, euh, ministre suivi jox la jox la premier ministre def la tête de pour man euh, boobu du léegi ñi dàq la ñi dàq la génne la gouvernement bi débarqué la yow boo boobale kenn déggu la élection locale jot kenn déggu la élection législative jot gisuñu la fenn fenn fenn nga xëy ne Macky Sall ne candidat nekkatul candidat nga ne noo ñoo leen ma jiitale pour man loolu yàpp ñu la sa baal ma nag sama man nga mais man xam nga ma man Omar Sow xam nga ma du ma du ma gone 1000 francs gone 5000 francs yooyu ngeen di ngeen xam da ngeen di fay wala am fu ngeen ma téye non man dama am libre d'esprit damay wax li ma xalaat damay wax li ma gëm président Macky sax xam na ne man li ma gëm laay wax parce que ci ngëm-ngëm laa ànd ak moom du ndaw yoo xamante ne dañuy toog ci ay café ñi leen fay tey ñuy affiché ay candidat non man je de la trajectoire politique de l' avenir de ce pays de l' avenir de la coalition de l' avenir de notre loolu laay wax moo tax s'il vous plaît respecté leen ñu jox leen ñu cër jox leen Sénégal yi cër quoi sincèrement jox leen ñu cër jox Sénégal yi cër il faut que ngeen arrêté li ngeen di def arrêté leen amul leen nit ñi njëriñ musu leen faale nit ñi mosu leen wet nit ñi mosu leen dem dëj mosu leen dem jaale ji mosu leen dimbali nit ñi mosu leen tabax jumaa mosu leen tabax jàkk mosu leen jàppale kenn tey ngeen xëy yeen grand ngeen di lappi lappi ne ay candidat ngeen di génne xaalis bu bëri di ko jox ay ay ay influenceur di génne xaalis bëri di ko jox ay ay ay ay ay presse di ko génne xaalis bëri di ko jox ay ay ay gune parti bi nga xam ne gune toogoon nañ fi ay temps wéet lool kenn gisu leen ngeen dimbal leen tey ngeen bëgg ne gune yooyu grand yi bëgg leen gëm loolu ñoom dañ leen a bëgg bëgguñu leen de dañ leen bëgg a defaat pont pour ñu ñëwaat jéggiwaat jàllaat man Omar Sow je dis non malheureusement je dis non président nag mooy choix am mais buy choisir day choisir koo xam ne dafa ñu gañeel day choisir koo xamante ne tey mun mun nañoo yóbbu tey fu ñu jëm te ñëpp xam nañ kooku mooy kan.